Um, this morning we are going straight to our studio story and that is the distribution of government's COVID-19 emergency food aid has begun across the entire nation as thousands of truckloads leave Makati Square daily, announced by the government spokesperson. As of Tuesday, Ibrahim Aji Sankare said some over 193,000 bags of rice and more than 197,000 bags of sugar have reached their di distribution centers nationwide. Of the 148,000 of 10-liter drums of cooking oil, some 125,618 drums have also left Makati Square for the various distribution centers across the country, he said in a statement. Ibrahim Aji Sankare announced that the distribution from Makati Square to the province is expected to end before the end of Friday. It could be recalled that about two weeks ago or about a week ago, President Adama Barrow launched government's COVID-19 support worth over $7 million to suppress the impact of coronavirus global pandemic on needy households across the country. gis nañ ne fii fu président Adama Barrow dafa rooloon food bank moo nekk million dollars loolu la dispense pour support ñoo xam ne ah, seen loxo jotut seen ganaaw o seen tànka daal ñoo xam ne daal loolu la support waaye government spokesperson bi moo nekk Ibrahima G Sankare moom mu ngi wax ne balaa end Friday bii ah, yeneen yi tamit aga food bi dina aga si dahdahi mu ngi wax ne around 125000 uh, bags of rice ak sugar ñooñu yëpp eega nañ léegi dañ leen distribute gars yi dañ left Makati Square xam nañ ne Makati Square foofu la bagaas yi uh, nekkoon waaye léegi mu ne ñooñu uh, bags of rice boobu moo nekk maalo bi ak sukur bi léegi bàyyi nañ foofu noonu dem nañ si seen places yi waaw loolu am na solo te loolu la askan bi doon xaar because bu mu ñëwee mu ngi woon si bàyyee bu mag bu nekk Banjul ñu teg ko fa waaye fekk àggu si nit ñi rek dafa mel ni àggut sa ñu ko aajoo ñu nga xam ne ñoom ñoo ko war a jël su fekkee àgg na si ñoom soo tam nekk na lu nga xam ne loolu la askan bi aar soo di wax na rek ñi nga xam ne ñoom la nguur gi dénk pour ñu war koo séddaale ñu jaarale mbir mi si yoon bañ koo def séddaale bu kii rek euh, yemale ko si benn famille o something say say nit ñoom la ne bëggoo si réew mi leen wax te lu xaalis boobu dañ ko jël si xaalis si réew mi te réew mi na ñëpp ko bokk lépp ñëpp la te kon lu nekku nekk daf si nekk su ko defee nag ku si nekk tam ñu jox la li lii sa warugar xam naa ne ñëpp mënuñu am waaye ñi ko yelloo mm. ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñu war ko am ñoom leen ko am si dala bi dal nañ ko def mu jaar ci yoon àgg ci dépôt ci waaye nag nañ ko jox ñi ko wara jox ci mm. time bi dem mu ga parce que jamono ji di yu dem non di oil ci di rice di suga yépp dañ dañ nekk ci jamono bu nga xamné ni dañ ko gëna soxla kon ci féké né àgg yépp ci dépôt ci li ci dess moy tassaré bi séddale bi loolu nak lañu advice yi nga xamné ñom la war ñi def ñu doxalé ko ñu wara doxé mm. té bañ ko def séddale bu ki dal waaw waaw comme euh, dafa am solo torop because recently read nañ fi benen report am ku nekk di wax né mom dañ top kéram bi because mm-hmm. dañ foog ne ak kër bu mu nekk moom kër bi dafa rafet soo si ñoom moom dafa am moom këram bi ak kër bu mu dendoo soo lii dafa am solo trop xam naa ne ah, distribution bi tamit suñ koo def nañ bàyyi xel si yooyu noonu tamit bul gis nit ki fu mu dëkka rek nga ne ok kii dafa am all that because at the end of the day lan nga lan mooy determinant of kan moo am ak kan moo ñaaka you know mun ngaa gis nit koo xam ne mu ngi si place bu nice macha allah waaye fekka dundin bi nekkul loolu fekk am mm. am bi du loolu fekk mm. gis mus ngaa gis tamit di nga gis tamit koo xam ne mu ngi dëkk si place boo xam ne baaxut noonu waaye fekk mu ngi amee soo loolu noonu ñi dañ ko war a bàyyi xel torop especially ñu ko distribute ñoom alkalo yi and and all that foog naa ne I think uh, ñu ko facilitate moo nekk alkalos yi because ñoom ñoo gën a xam seen dëkk yi ñoo ñoo xam nit yu fa ak kan mooy kan especially si dex-dex yi su dee ne fii la dafa jafe trop because place bi dafa rey bi du mun a xam ñëpp waaye si dex-dex yi moom loolu dafa yomba alkalo bi mun na round kër yi yëpp si uh, si benn bés so loolu noonu I think uh, dafa am solo trop te nit ñi dañ ko war a bàyyi xel foofu noonu 啊。